nam soxna jaara ki jaloorem nu ñaaxuwaat mam ci géejëm gi saxoo du su géeb lay lay la ci xeewal yi kor dellu seet duwaat nawet baa ngi ah. waamew yàlla waa ngi di wal fu ne waay tax mu sax meññ toloo gumu siqi waat maam jaara ku dëkkaale ak yàlla ngi nii ba jobaani ku rëy ay jaloore ngi nii di xudwatu saalihaat maam jaara lu jim njaaga ah. maam jaara di njaag umu say xanaa am ndab lu fees lii ngi am ndamba soxna jaara di ko day di waaj taayu wow di ko day di waaj taayu wow day waaja taaruwaat ku man góor ku raw kaa ngi ku cër ku màgg ngi waaw moom li tax nit ñi di ci ñëw mooy lu barkeelu yaakaare fi barke waaye barke boobu tamit mm, nekk gu ci soxna jaara nekkoon doon fi roote looloo tax nit ñëpp ñoom riir ñëw di barkeelu ci desiitoo ca desiitam woowee loola moom mooy barke bi ndox mi nag kenn mënu laa wax ni la day faj nangam wala bokk naa ne nangam wala na loolu kenn ñi mu ko wax waaye xam naa ne kenn nekk daal faj nga ci jàngoro ju bokkut ak ja ca sa morom faj waaw kon daal loolu moom mooy barkeb teen bi ci li nga wax noonu bu dee lu mel ni wàllum euh, organisation bi ak ni ñu fi nekkee loola ndigal moom moo ñu fi boole. loolu kan mu leen ko jox. ndigal loolu Cheikh Amadou Mountakha ndax euh, ñii gis ñëpp ñu mu tërbiya la ba yeewi leen ba nekk ci seen bopp. ñenn ñi nekkaat ci ay loxoom te noppeegun bu demee ba toll ci waxtu wi nag ñoom ñooñu la ñuy boole ñuy taxawee fii ci barab ba di taxawee fii ci teen ba di taxawee ci kër Soxna Jaara gi di ko organiser waaw daal lañ ci nekk. Mhm. macha allah dañoo gis ne fi mu toll nii teen bi bis boo nee Porokhane rek xalib ci teen bi ñoo gis rang gi tamit te tam ñu daal gis ñoo xam ne maam ñoom ñëpp dañoo sol ay ay ay mbubb nuróole ko maanaam benn kuréel bu yéen boole la rek wala da ngeen def ku ñëw rek ñu daal jox mbubb nga ànd ci liggéey. waaw bu ne Porokhane ñëpp ñëw moom barkee tax ñëpp di ñëw waaye li nu boole fii tamit lu ci nit Porokhane rek mooy seen liggéey danoo nekk ca loo xam ne ca ndigalu sëriñ bi Porokhane ñëw ñu boole ñu ñu joxaan ñu ndigalul Porokhane même fi mu ne bu fii ci Porokhane tamit ñoo nga ca leneen ñii nga ca daara ja ñii nga ci seen bopp bu sëñ bi soxlaa yeneen activité su boobaa tey ñii dañuy jóg li ñu boole tamit nekkul ni ku ñëw rek mën caa bokk déedéet même laay bii nga xam ne moom la sax ñu def ci. ahlu tarbiya wa tarxib ni kulli ma yaxtamu bi xidmati Seex al Xadim si Amadou Muntaxa ko fental boppam loola képp koo xam ne jaar nga ci loxoom mu yar la ci kuréel gii nii ci nga war a bokk ci nga war a nekk tamit mooy sa mbootaay bu loolu yëpp jàllee nag képp koo xam ne xeemem nga bëgg lu baax te doxin wi ñor la su boobaa boo waxee kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy yiite lii danañ la ci mën a boole nga mën caa bokk waaye nekkul ni ku rek mën cee bokk déedéet léegi soxla yoo xam tamit ndax kuréel bi maanaam Porokhane la yem tubaa Touba la nekk wala dafa am kuréel boo xam dafa féete Porokhane am kuréel boo xam dafa nekk pour Touba wala yëpp euh, euh, ko waxee rek bokkuñ ci ay barab yi ne ñii ñu ngi ci seen bopp ñii ñu ci loxo sëriñ bi ba ba noppi waaye yëmut ci Porokhane kese Porokhane moo ci mujj ndigalul Porokhane moo ci mujj kuréel gi dëgg dëgg dëgg dëgg xeemanteefam mooy daara si Muntaxa ji nekk daaru tansil ñoom ñi nga xam ne ñoo tërbiyo ba yeewi ko wàcc ñoo waxoon li ñuy liggéey di ci amakus ñëw dañ koo bëgg di ko dajalee di ko dimbale si mun taxaw ci dépasse bi dong yee jàng loolu lañ tàmbali woon depuis 2007 ba sëriñ bi 2007 2000 waaw 2007 ci at moom ba 2008 ja mu toog xalifa sëriñ Basiru doog cee dolli lii kon lii luñ dolli la ci kuréel gi waaye fii la fekkoon kuréel gi tax ko woon a jóg. Mhm. léegi seen doxalin yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci fi nga xam ne mooy teen bi ak am rutan yi nga xam ne gis na leen fi lan mooy. waaw lëkkale. waa bu ñu tëkkee dañuy waxtaan bu ñu leen fi indee jëwriñ ji mooy waxtaan ñoom xamal leen ni leen liggéey bi nag ñun ak yéen ñoo ko seq lépp lu jo lépp lu jugg ci règlement ci biir barrière bi loolu donga yi ñoo ko amee la fa nga xam ne nag mënuñu faa àgg su boobaa yéen yéen a fa nekk ndax taxaw fii ñu leen di gis rek am na lu muy def ci mbooloo waaye wàllum duy wàllum réglé wallum defar ran loolu donga yi mën nañ koo defar waaye la leen tënk nga xam ne civil mënut a atte moromam loolu ñoom mooy seen liggéey noonu lañ ci jaxasoo ñoom. way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara